comme mu ngeen ko gisee dafay yombal dund doomu aadama te yowéneel ay mbiram yépp ci zaahir ak ci baatin njëkk loolu nag bala ñu dugg ak yéen ci li nga xam ne maanaam moom mooy secrétaire bi nga xam mi ngi aju ci wàllu maanaam wàllu noob secret bi euh, bala ñu see ñëw ak yéen dañ leen di gërëm bu baax a baax a baax di leen di sant itam ci abonné yi nga xam ne yéen koy def ci biir seen bi ak itam appel yi nga xam ne ñu ngi koy jotee fu ne di jéggalu itam ñenn ci ñi nga xam ne ñooy faral di oote ci naqaree jot gi du caagante ne dañoo jafe wala dara waaye dafa fekk ne yittee jamono rek moo ñuy tënk ndax comme niñ leen ko waxee woon néewoon ne dañuy dugal wàllu secret yi pour di nekk sëriñi kenn waaw néewuñ sëriñi kenn képp koo xam ne mën ngaa jëfandikoo secret bi ñu ngay lay ñaan nga defal ko sa bopp waaye itam bu nekkee ne mënoo ko ba di ñu oo di ñu yéex a jot itam ñu ngi ciy jéggalu bu baax a baax. di wax ne ittee jamono rek la waaye du dara tey nag dañoo ñëwoon ak yéen indi leen secret bi nga xam ne maanaam mooy mooy secret noob noob bi nag euh, néewut noob bu jafe maanaam nekkul noob boo xam ne noob bu jafe la te yomb naa def doomu aadama bu nekk boo góorgóorloo tuuti ànd ak farlu mën nga koo bindal sa bopp noob bi pour nga def ko comme ni ngeen ko gisee noonu incha allahu dangay bind kun bismillahi rahmaani rahim nga bind muhammad muhammad da ngay ubbi ñaari miim yi miim gi dangay ubbi ñaari miim yi nga xam ne moo nekk ci Muhammad nga bind sa tur ci kaw bind sa tur yaay bind tur ki nga xam ne moom ngay noot bind turu yaayam miimu itam da bind turu ki nga xam ne moom ngay noot moom ngay njëkk bind ci kaw bind turu yaayam bind sa tur yow ci suuf bind sa tur yaay euh, soo noppee da nga koy lem nga am foo xam ne foofu nga koy def incha allahu nopp nag képp ku ko def maanaam pour lan la newut maanaam pour wàllu caaxaan ndax noot bi comme ni ngeen ko gisee baat bi ko tënk rek tënk na lépp baat bi ñu génnee noot bi tënk na lépp moo tax képp koo xam ne danga koy def ci caaxaan doo ci am barke waaw noot bi pour lan la yow mi nga xam ne jigéen gi nga xam ne dafa sëy ci kër ñu noonale ko ak borom këram maanaam lu mu wax borom këram xëpp ci kaani wala yow mi nga xam ne dangaa sëy ci si kër nekk fa di góor góorlu maanaam di di di muñ ba yàlla def mbir yi sotti te olof jaay dafay faral di wax ne lu sotti rek am borom mu dem ba mbir yi commencé aussi sa borom kër ay mbokkam commencé ko indil maanaam fexe di ko di ko dugal ci yeneen i mbir maanaam yeneen yi soxna ñooñu secret boobu pour yow la wa ilaa yow mi nga xam ne dangaa nekk góor am sa soxna di muñante ak moom di dimbalante ak moom mu jékki-jékki nar laa woon ginnaaw ci loo xam ne tegu ko fen léegoo léeg nit ki dana nekk ak borom këram wala mu nekk ak soxnaam nekk ci jàmm lool lool lool waaye dañuy jékki-jékki ci coow rek la ñu nekk coow rek la ñu nekk coow rek maanaam duñ mën a nekk ci jàmm ku góor ki du xam lan la ku jigéen ki du xam lan la léegoo léeg da ngay wax sax ngir defar di wax wax joo xam ne da ngay bëgg sa borom kër kontaan waaye da ngay gis ne daf koy mujj naxadi wala léegoo léeg ngay def sa defal sa soxna loo xam ne da ngay bëgg maanaam kontaan waaye daf koy jëlee maanaam coow. wala ilaa léegoo léeg ngeen di coow ci coow yoo xam ne du am dara ba du am benn fayda ba mu mujj ci ay mbir yoo xam ne yàlla ñu ci yàlla musal ndax bari léegi ay sëyi tas yoo xam ne boo laajtee coow li kenn du la wax maanaam lan la lan la kenn xamu ko ndax li yàq ñoom xamuñ ko yow mi nga xam ne nag bëgg ngaa tënk sa boroom kër tënk maanaam wala nga tënk sa soxna walla nga tënk sa patron ba nga xam ne benn day wéy ci sa ay waaw ñaareel bi nit du mën a dugg ci seen diggante bay yàq kenn du mëna dugg ci seen digënté bay yaq na nga def secret bi ni nga xol boko defé insha Allah allahu rabbi da nga ci gis ay résultats yo xamné ne da nga jokkoo ñun wax ñu insha allah ñi ngi sant ñi ngi gërëm ñi ngi leen di ñaanal yalla di wax na ngeen abonné ci suñu chaîne bi insha allahu muy coran les grands secrets di wax ne comme niñ ko yàggee wax képp ku mëna défar secret yi sa bop mën nga ko défar sa bop buñu o oo ndax néew bëgguñoo ne sëriñ ñi kenn ñu jëflanté ak kenn. ci lenn ba tax ñu dugal secret yi li tax ñu dugal ko secret la yoo xam ne gis na def nañ ko gis nañ ci njëriñ te ñun suñ njëriñ uuti naa njëriñi keneen ndax soxla bi ñu am bay jëfandikoo secret bi bokkut ak soxla bu keneen am pour jëfandi pour jëfandikoo ko te même buñ bokkoon secret buñ bokkoon soxla itam jëfandikoo même secret bi yàqut dara ndaxte kii kii faj aajo yi di faj soxla yi moom mën naa faj soxla mbooleem jullit mën naa faj soxle moo leen bindee fii te du la yàqal yow ci sa soxla bu faju bi dara loolu rek moo tax ñu ñu koy def ñi ngi sant ñi ngi gërëm ñi ngi leen di ñaanal yàlla di wax ne képp koo xam ne bëgg nga ci ay leeral mën ngaa jokkoo ak ñun ci plus 221 77 286 ngi sant ñi ngi gërëm ñi ngi leen di ñaanal yàlla yàlla yàlla defal leen jàmm defal ñu ko musal leen mosal leen ubbi seeni buntu sa ci zaahir ak ci baatin te musal leen ci noonu te barkeel seen alal mu néew mu bëri yàlla na ko yàlla barkeel asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu